voudrais d'abord féliciter président Bassirou Diomaye Faye Si vous nga œuvre de salubrité publique Madame ko ci ni nationale bi nga xamné ñepp la ndax assemblée l'assemblée du déshonneur ay xaxara ki xaste ki wax ju ñaaw lu ne gis nañ ko donte sax président Bassirou Diomaye fay ba mu tàmbalee la mu njëkk a def mooy wane ne moom père de la nation la ndax père de la nation du ci ay ci suffrage yu sénégalais yi nga koy doone sénégalais yi fal ko mu war a tëddee njaaxanaay war a jox ku ne cër ku ne respect ñépp nangul ko ko nak ca la jëlee muy président bi nga xamné moy mooy HCCT président la wala président euh, conseil économique social et environnemental né du len laal ba ci xamna naa sax ñun ñii ay partisans duñu comprendre mu né du ma ko def parce que ay kilifa lañu war nañ fee mën a toog bañu dem assemblée nationale ba assemblée nationale bu bess comme suñu projet moy tas ñaari institution yi man duma duma duma koy toroxal doomu aadama waaw loolu du don gentleman lolu du élégance waaye ba mu comprendre ne ñii xamuñu teraanga parce que loolu wax ji xamuñu ko xamuñu esprit bi nga xam ne seen bopp lañ tuddee républicain waaye li ñu fi dem bopp ba tey dara du ci républicanisme ñëpp xam nañ mu dal di nag jël ay matuwaayam ci fulla ak fayda parce que noonu la la dal di dakkal lii premier ministre amul pour dem di présenter déclaration de politique générale boo xam ne yoon imposé wu ko ko ci assemblée nationale boo xam ne xam nañ ne ñépp ay dem ndax sénégalais yi dóor nañ leen ca seeni bureau de vote le 24 mars loolu rek war naa bu dem waaye la war a tax pour man du dem parce que lo yoon imposé wu ko ko kon foofu amul fenn fu mu jalgatee yoon bu mu ne daw ma te foofu la ko waroon a commencé ne daw ma changé leen bi euh, règlement intérieur parce que looloo waroon a am ndax ndaxte dañu jalgati woon règlement intérieur waaye lu ngeen mën a it damay xaar ba seeni morom yoo xam ne dañ leen euh, fal ci anam yu set wecc bu boobaa mu ñoo def présentation de politique générale pour man looloo doon sama position te looloo war a am te looloo nar a am incha allah